Ousmane sonkoo ak Adji Sarr démb balaa may ñëw sax ci sa jàngat lan nga naka nga jàngatee bésu 23 bi démb. waaw loolu moom gàcce gi ma ci am démb defe naa ne ba ma juddoo ba léegi. Hmm. gàcce gi ma am démb. defe naa ne loolu moom yàlla gàcce ko yàlla bu ma ko amati ci àdduna. Hmm. parce man mënuma gëm benn doomu benn doomu aadama. di Ousmane Sonko. Hmm. nga toppee ko viol lu ma trois ans. yaa ngi dégg. Mhm. heure boo yëkkatee dossier bi nit ñi gën a bëgg Ousmane Sonko. Mhm. heure bu ñu xëyee nit ñi gën a bëgg Ousmane Sonko. man ma taxaw seetlu ma ne man nag. te ay nit dee ci. ba ay nit dee ci lu mat fukki nit ak nangam. juróom-ñaar juróom ci ñàkk seen bakkan. Mhm. ma ne man dinaa def jàngat nag parce que Ousmane Sonko bi man dinaa xam ne yàlla. moo xotti xolu doomu aadama yi dugal ko ci. wala qu'est-ce léegi sama jàngat de sama jàngat mi nag démb laa la laa ci am déception. parce que man dama jàpp ne nit ki boo ko tuumaalee viol. Mhm. lu ma trois ans ñu ñëw tribunal lan lan lan lañ fa ñëw. Euh, neuf heures mhm. ba trois heures di matin nekk ci ay kesaw kesaw yow kanaa boo tuumaalee ni war nga indi preuve. Mhm. yoo xam ne àdduna bi yëpp dañ ciy teg seen bët. xam nga yenn saa da ngay dégg nit ne man de kii jàppoon naa ko waaye jikko ji mu def moo tax ma bàyyi ko. mais Ousmane Sonko am ñoom amuñ benn preuve boo xam ne man nañu teg ci table ba libéré Sénégalais yi. Mhm. lu du nekk fa kesew kesew mbaa da nga toogoon di xaar vidéo yéeg yooyu yi ñu doon wax. a ah, samay morom tim loolu lañ doon xaar di. Mhm. parce que tuumaal bi da dafa yàgg. Mhm. dafa yàgg lool. ñu ne fa amuñ benn preuve. Vito image Sénégal yàqu na. waxuma la dara waaye Adji Sarr nekk moo tax Ousmane Sonko li tax ñëwut. man dama ko doon xaw a sikk tuuti. ne na ñëw na ñëw waaye lu tax ñëwut démb laa doog xam ne jarutoon muy ñëw. Uh-huh. parce que Adji Sarr ne ca saal ba dégg naa mel ni kuñ kuñ pikiir. Uh-huh. di fàtti fàtti. di génne ci làmmiñi dégg naa làmmiñ wax yoo xam ne non senegal Sénégal gii sëñ bi. Uh-huh. Sénégal gii bu taxutoon na maam El Hadj Abdoulaye Niass. bu taxutoon maam Khalifa Niass. bu toxotoona Mawlaaya Cheikh islaam Islam. bu na borom Touba. bu toxotoona bu Kunta Njaasaan. bu ko bu toxotoona maam Imaamullaahi. barkeb Cheikh Tidiane li ma fi am ak sama njaboot yëpp laay bu génn réew mi. parce que réew mu amul dëgg jàmm du fa am. jàmm du am fu dëgg amut. démb boo gisee da ngay xam ne réew mi réew mi fii dëgg amu fi. Mhm. nañu waxante dëgg. nit ki man boo ko tuumaalee ba ay ba ay ba ay doomu aadama dee ci. Mhm. boo ñëwee indil preuve. teg ko ci bëti Sénégal yi ba ñëpp gis ko. Mhm. ñu xam ne ah kii kat ndekete ndekete liñ ko doon tuumaan ndekete dëgg la. parce que mhm. preuve yaa ngi nii. Mhm. mais amul lenn luñ mën a teg ci taabul yi. amul lenn loo xam ne mën nañ koy yëkkati teg ko ci taabul bi yu Sénégal yi teg seen bët. kon ñoom lii man ni ma ko yàgg lii seen lii affaire tappale la affaire affaire affaire euh, dossier boo xam ne affaire caaxaan la. waaye nag man sama wax toujours dama ci jiital nañ nañ sóoraale. yow ma yi nekk ci alquran te yàlla di ci tëkku doomu aadama yi yàlla ne ne yow ma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa banni li kullum ri min yowmi shenu yoni mhm. yow ma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yow ma isin lillaahi aaya boobu attakat yee moom mhm. kon nañ bàyyi xel yow ma laa yem foo maalun wala banuuna illa man ata allah bi qalbi salim nañ bàyyi xel yow ma yooyu de benn doomu jàmbur nag man dama gëm ne euh, buñ indi woon buñ indi woon buñ indi woon preuve. Mhm. konoon ñëpp dañ noppalu. Mhm. mais dossier bii dossier bii dossier bii ni ma ko gisee nii. Mhm. bu dee dañ cee bu dee bu dee dañ cee condamné Ousmane Sonko. bee boo képp kuy góor. ne ci réew mi képp kuy góor ne ci réew mi. bee boo nga xam ne sa bakkan a ci xotti gerte wala yaa ngi ci dansé. Hmm. moo xam sa digganteek sa coro booy bëgganteeg moo xam sa digganteeg sa jabar. Hmm. bu dee lii dañ cee condamné Ousmane Sonko le premier juin. Hmm. billaahi lazi laa ilaaha illa képp kuy góor di takk gañu ci réew mi bee boo xam ne sa bakkan baa ngi ci xotti gerte loolu nag maa ko te du ci daw ginnaaw. lan moo tax nga ne bakkan a ngi ci xottu gerte. ah parce que yow. Hmm. boobaa yow sa jëkkër sa jabar. par exemple sa jabar da nga tëjoog moom ci néeg mhm. ah mu génne da ma violé loo ci man foofu laay waxee sa jabar ci boppam ji nga takk ci farata yàlla julli ci jul farata yàlla ak sunu si Muhammad da nga tëjoog moom ci néeg mu génn bind xawma nu ñu koy waxee noonu mhm. plainte plainte ne da ma viole lii moom buñ buñ ko bàyyee mu jàll ñi tëj ci Ousmane Sonko képp kuy góor moo xam ngay bëgganteeg jigéen wala mu nga takk ko jàppal ne sa bakkan baa ngi ci xotti gerte la que nag euh, bu dee dëgg rek dëgg rek a neex yàlla dëgg rek a neex yàlla mhm. man gisuma preuve boo xam ne war nañu mën a condamné Ousmane Sonko li may wax ne teguma teguma ko ci za teguma ko ci teguma ko ci baatin mhm. Sénégal na dañoo tàmm boo waxee rek ñu ne ak kii moom li muy wax ni wala naa li may wax sama analyse bopp la mhm. teguma ko ci baatin ci zaahir laa ko teg lu leer lu leer loo xam ne ñëpp Mm-hmm. seen jàngat ñëpp loolu la war a doon ci loolu laa ko teg mm-hmm. mais teguma ko ci affaire baatin ak yooyu mm-hmm. mais man dama dama doon gëstu ne Ousmane Sonko li ko nit ñi bëggee may yàlla la wala nàngam la eh, démb démb gàcce gi ma am vito moom leer na la démb téye naa sama kurus téye naa sama kurus ba trois heures jàpp quatre heures du sama ronq ji bi muy toq teyu ko barkeb Cheikhou Tidiane parce que ma gëm ne yow benn doomu aadama benn nit benn nit tudd Ousmane nga pare pour yàqu ko. mu jaral te yàlla moo ne. yéene boo gis nag néeg la borom moo fay fanaan. wala yaxiqu makru shay'in illa bi ahlihi du samay wax waxi yàlla la. te defe naa ne justice bi bu dee maandu nañ. maandu gi yàlla ne inna allah yaamuru bil adli wal ihsaan. Mhm. bi foogu ma ne wala jàpp ma ne man nañ cee condamné Ousmane Sonko. mais dossier bi est jaroon na sax muy ñëw 9 ba 3h ñëpp ñëpp toog di xool. bu preuve amoon jaru ko. mais xamuñ xamatuñ lu ñu war a def. Ah, wax jaa ngi noon nga ne. bu preuve bu deen preuve am na. bu deen preuve am na dañuy ñëw rek libéré Sénégalais libéré ñëpp. Hmm. mais preuve amut. moo tax mu yàgg noonu moo tax ñu yàgg ne fa di ay ndax sax kana nangam ak nangam. bu preuve amoon duñ fa du ñoom duñ fa taxaw sax. Hmm. Hmm. kon nañ bàyyi seen caaxaan yi. te billaahi am na luy nelaw ci réew mi. heure bu fi yeewoo. loolu moom li may wax ni na waxi baatin la. Mhm. lu ma yàlla wan la. am na luy nelaw ci réew mi bu fi yeewoo bu fi yeewoo bam di ñetti yoon baax na. parce que dañuy wax ne réew moo xamante ne dañ fay toroxal góor ñëpp toog di seetaan. waaw du euh, dëgg du yoon sëñ bi dañu waxante dëgg. du réew mu wóor daal du réew mu wóor réew mi wóoratut déggoo ma ne la man sama maam yu baax yi rek sama maam yu baax yi. Mhm. rek laa rus. konoon ma takk li ma fi am génn réew mi parce que réew mu réew mu dëgg amut jàmm du fa am dëgg day am ba pare mhm. jàmm ñëw tegu ci kawam mais jàmm jàmm jàmm jàmm jàmm boo ko bëggee da ngay def dëgg mhm. jàmm fekk si la si réew mhm. moo xam ne ñi war a wax waxuñ moo tax ma ne am na luy nelaw ci réew mi buñ ko yeewee baax na am na it benn euh, mbir moo xamante ne bëgg naa ñu duut fa baaraam kii la di Ndeye Khady Ndiaye doonoon koo xamante ne moo di euh, borom salon bi nga xamante ne foofu la mbir mi ñuy ruumandaat yëpp xewee woon moom mu ëmb ba am huit mois defe naa euh, waaye teewul taxaw na trois heures taxaw na neuf ba trois heures du matin di wax moom tamit te lépp lu mu wax du ci delluwaat. la mu waxoon ci usmaan Sonko seetal Ousmane Sonko ci la waxaat te ay avocat am sax geet doon génn bàyyi ko fa moom kese taxawaayu Ndeye Khady Ndiaye démb euh, ban jàngat nga ci am cheikh bi. waaw kooku moom defe naa ne jigéen ju man góor la parce que defe naa ne bu doon xaalis rek rek defe naa ne bañ ko jëndee yàgg na. mais réew danay toll foo xam ne yow ci boppam yow mi mën a yow yow mi yow xam nga tey moom bu ko neexoon bu defee Ousmane Sonko rek konoon waxatuñ ko. mais nag dafa dafa dafa dese ak di téem ak di sooraale bis penc wax naa la ko ci ginnaaw ndax fii boo fii tappale wala di fii def njuñ njaaj ëllëg ëllëg yow man xam yëpp la la la yàlla tegal mhm. te defe naa ne kuy sooraale ñetti fan yu bàmmeel mhm. wala ngay sóoraale bis penc looy def fii nag dana doon loo xam ne doo ci jiital sa interprète mais da nga ciy jiital yàlla mhm. te man nag ay mbiram dama gëm ne yàlla la ci jiital mhm. dama gis ne jigéen ju gëm yàlla la mhm. dama gis ne ku ku bañ ku toroxal doomu aadama la mhm. kooku sama jàngat loolu la ci moom waaye nag yàlla moom kenn du ko nekkal kenn du ko nekkal pare di am toroxtaan bi non non nekk mais kooku moom man defe naa amul benn kàddu goo xam ne Euh, bu négatif la. Mhm. bu ma war a jëmale ci moom. wala mhm. di koy ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm. Ousmane Sonko ak waa Ziguinchor fii la ñu bi ñu fii mujjee ñëw yow yaa ne Ousmane Sonko demam gi Ziguinchor am na lu tax laajoon naa la nag nga ne ma am na lu tax rek falaa yem bii paase moom sax ne na dina ñëw waaye ñu jékki-jékki xaar nañ ko ba sonn ñëwul mais sànq génn na ne léegi la mu doon def Ziguinchor jeex na ñëwam Dakar. jot na euh, nekkam gi Ziguinchor ba ñëw gi dakaar gi jot loolu ban jàngat nga ci am fu mu toll nii. waaw loolu waxoon naa la ci nee naa la dafa am loo xam ne euh, loolu mbir boppam la. Mhm. loolu dafa am loo xam ne baatin lal na ko Ousmane ko nag nit ñi xam nga ñaareel boo amee tur te Ousmane Sonko ni nit ñi mel ci moom ñëpp gis nañ ko. Mhm. mais nekk nekkam fa Ziguinchor la ci ëpp baatin moo ko lal. affaire baatina duñ toog naan lii la. Mhm. wala laa la wala laa la mais ñun ñii liggéey kurus. Mhm. di niti baatin di liggéey ci ismu laay laxsam. Mhm. xam nañ ne nekkam ba baatin bokk na ci. nag ñiy fanaanoo nelaw <laughs> wala ñii ne ci appartement yi non non wax bu ba yàlla yiy liggéey ismu laay laxsam xam nañ ne nekkam ba foofu baatin moo ci waaw mais la ma war a doon taxawaayu euh, waa dakaar léegi comme Ousmane mu ngi ci yoon di ñëw dakaar Euh, te gis nañu taxawaay bi nga xamante ne waa Ziguinchor def nañu ko. Euh, waa Ndakaaru fu mu toll nii euh, lan nga leen di yéggee. waaw xam nga nag fa tabaarakallaahu ñin la ñu war ci wàllu ñaan. Mhm. pour réew mi am jàmm danañ ko def. Mhm. mais man gëm naa ne réew mi jeunesse bi ak képp kuy sénégalais defe naa ne dossiers yi nga xam ne ay dossiers caaxaan duñ nangu ñu faagagal si Ousmane Sonko parce que nii lañ defoon faagagal fii keneen ak keneen ak keneen. Mhm. Ah, yow nguur googu kenn du la opposé wu. loolu fu ma am lii buñ ko bàyyi mu jàll réew mi day yàqu. Mhm. def nga li ngay def ba pare mayal keneen mu ñëw def li muy def. Mhm. loolu mooy àdduna. yaa ngi dégg mhm. mais mais mënuma gëm ku am doole. pare pour opposer la rek nga nga faagaagal ko. nañu waxante dëgg ci dossier yoo xam ne dossier caaxaan dossier tappale la. sama baat ci kaw dossier tappale la moo tax ma ne la xam nga sama wax ji junjoon naa la ko ci ginnaaw nee naa la lii nelaw lii nelaw. Mhm. billahi buñ ko yee da xam ne am na si ñoo xam dañ ne buñ yëgoon duñ ci dugg. Hmm. la xawoon mars. la xawoon mars deux mille vingt et lu ko dina xaw. Hmm. bind ko note ko téye. buñ tegul lii ci suuf buñ tegul lii ci suuf la xawoon mars deux mille vingt et lu ko raw dina xew. maa la ko wax mais président Macky Sall moom waxoon na li fi xew li fi amoon dootu fi amati. Ah, baax na parce que Macky Sall xam nga ñëpp dañ ne ñëpp moom dafa dafa daf ne. Mm-hmm. ci biir waxam waxoon na ne am na dossier yoo xam ne moo ci teg coñcoom. Mm-hmm. mais dama gëm ne yooyu tey bu Ousmane Sonko bii nga xam ne bàyyi ko teg ko ci suuf. Mm-hmm. mooy jàmm. loolu rek ay jàmm. bàyyi ko teg ko ci suuf ñu seeti leneen ay jàmm. dossier bii moo tax ne la billaahi lii raam lii raam bu yegsee. Hmm. waaw lii raam moom li ciy pexe cheikh bi yaa ngi koy junju rek. li ciy pexe mooy <laughs> man moom la ma ca war ci wàllu ñaan. Hmm. xaaruma ci Samba xaaruma ci Demba. la ma ci sama doole may ci wàllu sarax. Hmm. la ma ci sama moyen may dinaa ko def. mais dafa am loo xam ne ñun ñoo ci mën a dimbale suñu bopp. justice moo ci mën a dimbale suñ bopp président moo ci mën moo ci mën a dimbale. mooy la mooy ko tey waxuma la dara mais okk ko okk ko mhm. mooy moo mooy tere réew mi tàkk na okk ko wala okk ko ci lu dul dëgg okk ko ci lu dul xam nga mooy comme la nee naa la tey lii ñu bari mhm. tey dañ démb lañ doon xaar mhm. pour bàyyi Ousmane Sonko pour bàyyi ko tey bu ñu génnoon preuve yu leer teg ko ci bëti sénégalais yi kon Ousmane Sonko xam ne sénégalais yi dëggu nañ waa jeex na xam nga nit ñi tey nee naa la Ousmane Sonko li tax nit ñi bëggu ko li tax nit ñi bëgg ko mooy jaay doole gi ñu koy jaay tey bu doon lii dañ koy xaar ay at ñi ñëw indi preuve yu leer. Mhm. ne waa jaa ngi nii moom la moo moo def nii moo def laa moo def lii. Mhm. kon ñëppay génn. wala ñu ci ëpp doole dañ génn nañ ñun kat duñ ànd ak caaxaankat wala nangam ak nangam. Mhm. mais preuve bi anamu. ana preuve bi ah man de gisuma ko. waaw preuve bi de preuve bi de. du ñàkk yéen gis ngeen yéen waa 313. bu ñu bu ñu bu ñu ne Cheikh Ahmed Khalifa lañ invité de ku jàpp da gis mu nga toog moom. jeex waaye ñu ne Cheikh Ahmed Khalifa lañ invité nga jàpp gis Bougane Gueye Dany toog <laughs> naa Bougane laa ñemee. gisuma gisuma preuve de gisuma man de wax dëgg yàlla gisuma preuve. waaye foofu foofu la ñuy daanalee rek ci wàllu actualité ndax xam naa ne gars yi seen soxla yee leen fi teg ñoom. Mm. Euh, le premier juin. Euh, dat bi peut-être xaw ma ci jeudi lay tombeel mm. ba pare doon benn premier doon benn mm. euh, ban gis-gis nga ci am ci date boobu ñu jàpp ne jour boobu la ñuy def délibéré. waa gis-gis bi ma ma ci am mooy euh, sans sans affaire u baatin sax mais sama gis-gis. Mhm. mooy ñi bàyyi lii ñi bàyyi ñi teg dossier bi ci suuf sama gis-gis. Mhm. mooy ñi teg dossier bi ci suuf. parce que maa ngi dégg ñu naan ay dix ans. Mhm. ay cinq ans. un milliard cinq cent un milliard cinq cent maître El la laaj. kooku moom euh, kook moom man awma lenn lu may wax ci moom. parce que parce que man dama gëm ne nit ki. Mhm. alal warul laa gënal sa sa askan. Mhm. alal warul laa gënal say doomi réew. ko heure bu waxee gémmiñ ni ñu koy waxee. nopp dem loxo dem gémmiñ am na ñoo xam dañ buñ ko gisee rek tiit seen fët yu ne tëf. Mhm. di xaar lu muy wax kon jàmm nañ ut jàmm nañ sàkku jàmm ci réew mi. réew mi fu mu toll nit ñi jaaxle nañ. borom njaboot yi jaaxle nañ. Mhm. boroom kër yi jaaxle nañ. waxuma la dara waaye dund gi seer gi dafa doy jaaxle. Mhm. nga bëgg cee teg yeneen ki yeneen yoo xam ne mën na taa réew. Mhm. nañ bali dossier yii nañ ko teg ci suuf. nañ ko teg ci suuf Vito Vito maa ngi koy ñaan. nañ teg lii ci suuf réew mi ne ci jàmm. yëkkati ko mooy réew mi tàkk na. le premier nag verdict bu mën a génn. bu dul loo xam ne. nit ñi mën nañ koo dégg. Mhm. musiba dana am. musiba euh, dina am yàlla nañ ci yàlla musal waaye cheikh bi sànq wax nga ba ne euh, dund gu cher gi waaye fii fii ñu faj la jox la dépense ci yow gisee faj nit ñi jox dépense ñu yóbbu seen kër yi euh, dama naan sax man cheikh bi xewal gi fu muy jógee. Mm-hmm. waaw gi fu muy jógee. waaw xam nga. Mm-hmm. xam nga comme ni ma koy fay ñun ñun tey. Mm-hmm. bu doon bu doon dañuy jaay saako ceeb un milliard ñun dinañ ko jënd. parce que kurus gi moo ñu koy jox. yaakaaruñ yaakaaruñ kenn ku dut yàlla. wa man yatawakkal ala Allah. yàlla lañ yaakaar. waaye nag am na ñoo xam ne seen loxo jotut seen ginnaaw. am na ñoo xam ne tey dund gii niñ koy jàmbatee ëpp na.